site boo xamante ni la yéen waa Gossas yéen a ko war a dooleel. Mhm. yéen ko war a jàppale. esprit mhm. Gossas TV mhm. fii ba Dakar ñëpp koy suivre. àddina wër nga këpp ñëpp koy suivre man Pekh bis ni que man ci esprit Gossas jërë ngeen jëf. Massadis Beautiful Gossas la dëkk Massadis Beautiful Gossas la dëkk. Massadis Beautiful Gossas la dëkk. Villa juddoo màggee yaroo gosaas ma town yeah xoolal environnement bi ni mu taaroo bukki du gaynde villa fam gosaas sa sila am sama dëkk mooy sama beru waaye su ma so gis leen am mbégte kom nye pou bokk naik baay dër war am luñ ji komplekse no voici mon village natal la ou a pas zame rival Min le bandi breni dëkkul meni, sud meeni dañu ya yaatu boole lol mooy ñu fi gën jare filan Fon kou fonk sori caxaan ka jeeg band yi fi dëkkee ñu blang bu sa soit du fen du en du sàcc boo ñu tooñee dem bu dore dóoree na pour bouteille vous Gossas la s'en Gossas, Gossas si. sama papa sama yaay jabar doom ñu ngi sama xarit samay maam am di jàmm ñëpp ñu ngi li ma xam ak li am li ko may mooy fu mu mën a nekk àdduna sama xel ak xol yëpp ma ngi du ma mës ñaan maam Thierno Diaw ba ginnaaw bi leen nuyoo di leen wax ngeen dal jàmm ci esprit Gossas TV euh, tey nag dañoo ñëwoon dalal suñu benn rakk suñu benn xarit ñu koy wax euh, Laye Pobar ñu ko loon dalal ci Esprit Kossa TV Laye Pobar ñu ngi lay si mbaa yaa ngi si jàmm. Euh, Touba maa ngi nuyu Kossa si yëpp di nuyu ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan di nuyu yow tamit di nuyu suma papa di nuyu suma yaay di nuyu suma sëriñ euh, di nuyu ñëpp ah ñëpp di ñuy di la bu baax a baax. jaajëf laay ñu ngi lay ziar bu baax di la bëggeewaat di kontaan ci yow di leen wax émission bi tey dañoo loon laay eh, Pobar pour waxtaan ak moom ci ay point yu xaw a euh, takku ci juróomi poñ juróomi poñ nag euh, laay fi ñuy commencé ñu lay euh, laaj kan mooy laay Pobar boo ngi doon wax kan mooy laay Pobar. kan mooy tonton Touba maa ngi lay béggawaat euh, Laye Pobar euh, moom ben jeune artiste la dëkk Gossas euh, juddoo Gossas yaroo Gossas màggee Gossas aussi waaw Laye Pobar bi turu turu la mais man sama tur dëgg-dëgg maa ngi tudd Abdoulaye Ndiaye waaw Laye bi nag turu artiste la waaw su ma nee turu Artis, artiste art bi dafa yaatu moo tax waaw ñun ay artiste lañu waaw loolu moo indi laay poobal bi naa turu artiste la jërëjëf jërëjëf donc laay poobal mooy sa tur artiste laay njaay mooy sa tur dëkk mooy sama tur Abdoulaye Njaay léegi beneen question bi leen laajtee lan moo la dugal ci théâtre ci comédie sax d'une manière générale ak contact parce que gis nañ ne yow ci wàllum compte ngay ngay ngay ngay ngay yëngu ak théâtre mm-hmm. ñu lay laaj lan moo la ci dugal dama ma dugal ci ci théâtre théâtre beeg compte beeg mm-hmm. animation beeg mm-hmm. sa liggéey bi ngay def actuellement nii waaw maa ngi lay bëgg a waat tonton Touba euh, aar bi li mu ci dugal aar bi dama ko yàgg bëgg waaw dama ko yàgg dund dama ko dund daal aar bi dama ko dund depuis enfance waaw maa ngi dund aar bi gars yi ma bokkal avance suñ ma seetaanee man mën nañ ko confirmer man maa ngi dund art depuis temps primaire daa temps primaire un 1 CP2 C1 C2 temps boobu laa tàmbalee dund art art nag dafa yaatu art boo xoolee comédie mu ngi ci mhm. théâtre conte euh, les dessin fecc way mhm. lépp a ngi ci art bi mais depuis primaire laa doon dund aar bi waaw hmm. aar bi nag euh, ci biir aar yàlla def na am na ay pàcc yoo xam ne nii euh, jot naa ci jot naa ko cee jàng hmm. lu ci mel ni théâtre naa ci théâtre ci fecc damay fecc gars yi fecc tax ñu ma damay way ci aar tamit euh, def na tax na ma am ci ay formation ay attestation ay hmm. formation lu ci animateur damay def animateur euh, damay def animation damay présenter aussi euh, damay cadrer cadreur formation cadreur infographie hmm. euh, lu ci même monitoria bi nga xam ne moom laa ci ma xam lan des collectivités éducatives Mhm. donc suma ma tamit né en plus de art bi. Mhm. tu es tu es un moniteur des collectivités éducatives. Mhm. ñu bëggoon nga yaatal ñu ci ci moniteur lan mooy moniteur des collectivités éducatives. moniteur des collectivités éducatives. la moniteur des collectivités éducatives mooy ñi nga xam ne nii euh, ñoom seen devise euh, tout pour l'enfant la maanaam moniteur des collectivités ati euh, des collectivités éducatives mooy ñi nga xam ne nii ñoom ñooy saytu xale yi. gunge xale yi euh, teete xale yi maanaam per seen temps ci xale yi. Mhm. ndax ñu ñooy yóbbu xale yi ndaw yi colonie de vacances euh, ñun ñoo leen defal ay patronage même sortie yi ngay gis ci parc an monument. ñun ñooy accompagner xale yi. maanaam waaw ñun ñoo leen encadré. moniteur daal des collectivités éducatives maanaam ñun suñu lépp ci xale yi lañ ko tënk. tout pour l' enfant tout ok merci. Mhm. ñu ñëw ci beneen question bi ñu lay laaj tamit yow. Mhm. Euh, dañoo gis ne Fesnac bi. tu mhm. as été tu représentes la région de Fatick. ñu wax fan nga jaar ba représenter le département de Gossas e la région de Fatick au niveau du Fesnac nan sélection bi nan la demee. sélection bi euh, sélection bi ni mu demee mooy Fesnac bu njëkk man dem naa deux mille deux mille dix huit dem naa. Louga Louga. bii du sa premier Fesnac. non non bii ah. mooy sama deuxième Fesnac. ok man mus naa njëkk naa dem Fesnac Louga bi ñu boba, booba bi ñuy jóge fii euh, région bi ci boppam région Fatick boba, directrice madame Diouf moo fi newoon moom dafa bi Fesnac bi waaj a dafa defoon déplacement ci département yi pour def euh, pour def ay auditions, audition ci théâtre musique danse léegi bi mu ñëwee Gossas dafa def audition je me fait audition, troupe théâtrale pour Gossas, suis gagné, danse pour Touba Kotel, avec musique pour Jovior, je pense que nous avons de l'ouvrir pour mon consommé. Premier festival. Mm -hmm. Nous avons eu un grand prix, tout est sec, nous avons 3 millions. Bobo c'est mon premier festival, mais Bobo a eu un la nuit. Il tout le temps la nuit, nous avons eu le Bini, mon ex, est deuxième. Deuxième. Wow, tombé -hmm. 2023-2024. tombé bi mu tombe euh, fees nag bi bi mu ñëwee dafa ñëw bett ñu bi mu ñu bettee ñun amuñu temps du Gossas nag moom mooy euh, organiser Fatick moo waroon a organiser fees nag mhm. bi loolu amee temps amul directrice bi nekkoon centre ba amul woon temps pour pour déplacer wu ci département yi euh, ci la waxee ci la ootee ci la ñu wootee casting mhm. casting régional casting régional. Bien mm. fait le casting régional, dani directrice du bureau dani chaque département de sélectionner 10 acteurs. Voilà, certes, quoi, 10 acteurs, actrices, d'un coup mélangé, mais 10, nombre de 10 le limité. Bien que ça se sélectionne 10, Founioun 10, Jofior 10, Yenin Teki 10, nous devons nous, bien de faire non, on a euh, qui envoyer une liste de 10. Gossas envoie une liste de 10. 10 comédiens. bi jour bi ñu waree dem Fatick bi mu jotee man dama yow euh, préparé ndax man damay dem casting man moom ba Dakar damay dem casting Saint-Louis damay dem casting euh, bi jour bi jotee ma yeewu fajar defaru dem sorti ba ma demee sorti ba di xool gars booy gisuma ci kenn ci la ma baaba cuun oowee ni ma laay yaa ngi waaj casting bi ma ne ko maa ngi koy waaj munuma loo yor moto man ko non yoruma moto mu ne ma dama foogoon ni moto nga yor nga nga yóbbaale benn booy man ko non man kay maa ngi ci sortie bi man noonu ci laa demee ci casting bi Fatick fekk fa gars yu bëri ñu def casting bi Sophe moo doon def casting bi. Ibrahima Mbaye Sophe Ibrahima Mbaye Sophe mm-hmm. ak Babacar ak Détu ma koy jóge waale bu mm-hmm. defee casting bi ñu ñibbisi Gosaas man biñ ñibbisee man ma toog di xaar résultat may xaar résultat ci lañ ma balancé message ni ma. boole nañ la ci casting dix personnes yi yi war a dem théâtre Fesnac waaw nii la demee nii moo tax ñu sélectionné ma ci théâtre bi. ci théâtre bi ci compte bi nag nan lañ def ba sélectionné la aussi. ci compte bi ni ñu def ba sélectionné ma compte bi compétition régionale dafa amoon ci région bi uh, ministre bi da doon def région bu mi organiser fesnak def nako ko on est au deuxième bi région bu muy organiser day def compétition ci région hmm. pour yi am national ministre bi wax ma hmm. bi euh, biñ koy préfecture man suis préfet centre culturel pour préparer Fesnac bi préparer foofu ci la ñu compétition régionale ak lay compétition compte. am na euh, euh, rëbbkat bi ki daaxal rëbb sax amoon na daaxal togg yooyu ki daaxal létt yooyu la doon compétir au niveau régional euh, compte bi nag Fatick kese moo amoon compteur Fatick Gossas amuloon compteur man hmm. man laa commencé compte Fatick kese amoon élément buy def compte bi ma àndee Baba Thioune centre culturel mu ni ma laay Fatick benn compteur lañu am de doo def compte moom baaba ci moo ma doo def compte nga compliqué rek ndax moom kese moom mooy def compte fii man ko mën naa ne compte comme théâtre comme ko damay def théâtre war naa mën a def compte mu boole maag euh, benn élément élément boobu gisante wuñu WhatsApp lañ doon waxtaan mu envoyé ma technique ñu waxtaan am na benn moment sax mu ni ma da ngay ñëw Dakar boo amee temps moom tamit dafa jóge woon Dakar dem. Diourbel dégg naa ci wéyu bay tamit ñu ne bi nga compétiré waa moo la ko envoyé. waa ji moo ko envoyé. Hmm. c'est envoyé jox ma ay technique hmm. ni ma pour mu ñëw Dakar. mais man awuma temps moom tamit amul temps. Hmm. ñu naan ko Cheikh Sylla kooku metteur en scène la euh, ci conte ak théâtre moom il est de Dakar. mais moom compétirul sax Dakar Diourbel la mujjee indi comme conte ak théâtre nii la sélection bi demee ma ñëw euh, jour bi casting bi amee jour bi casting biñ da waree demee casting mhm. ma ànd ak Baba Thioune préfecture ñu war a dem Fatick casting ci laa laajee Baba Thioune ni ko ndax compte euh, compétition régionale yi contre régionale dafa prix moom Baba Thioune mu ni ma prix ma ne ko ah gaay neewon nañ am nañ prix mu ma amul prix man ko ah man de bu amul prix ma compétir biñ démé ba Fatick ci directrice bi ma def tout droit ci bureau ni ko euh, madame kan compte dafa am prix mo madame kan mu ma lan mo la fi indi Manu ko compte mu ma am na prix dama génné wax ko cuun mu ma am nag mu ma ne ko cuun madame kan néna compte ba am na prix mu ma ah man de pour man amul prix ci la compétir ak Fallou kiñ naan Olof Ndiaye. bi mu yéegee moom moo njëkk a yéeg man ma ñëw yéeg sur scène ñu ñuy xaar résultat. ak Fallou rek yéen a joué. maag Fallou kon nañ continuer après question bi mhm. la demee maag Fallou ñoo joué après résultat yi euh, ñu envoyé message ne ma yow yaa au niveau régional yow yaay compétiteur national man maa compétiteur national. Mhm. donc yow bi nga bi nga compétition nationale. Mm-hmm. Euh, bañ na la yaa gagné. Mm-hmm. dama gis nañ bi nga ñëw si si sur scène. Mm-hmm. mooy cérémonie de de de collecture ba. collecture njëkk ngaa yéeg sur scène. fekk am na ku ñu woo nu mu tuddati benn paa bi ñu woowoon ne moom moo ko. paa jibi paa jibi Ndiaye ñu woo paa jibi Ndiaye. paa man gis naa la nga yéeg si seen daal leen paa bi gagné wul man maa gagné. ñu ne la wàccal nga ne taxawaat. expliqué ñu woowaat la. Mhm. ministre woowaat la jox la sa trophée ñun lool bëgg na nga leeral ñu si. waaw foofu jour boobu lañu ñu waroon a joxe résultat yi. moo nekkoon avant ça avant lo waaw waaw ju waaw demal demal demal. janvier moo ne woon euh, Fesnac bi le huit la woon du huit au treize janvier. Mhm. le treize la ñu waroon a joxe trophée mhm. ñoom lañu ñu waroon a joxe euh, résultat yi. le treize boobu ñu ngi ko defee woon terrain HLM. bi ñu demee ñun ñëpp troupe théâtre beeg ñëpp ministre bi ñëw ñu war a joxe résultat yi bi ñu toogee gel bi euh, doon présenté euh, ci la jëlee ni prix régional yi la ñuy njëkk joxe suñu joxee prix régional yi ba pare joxe prix national yi ñun ñu toog ñun troupe waa Fatick ñun ñu ngi toog bi femme bi di joxe ay prix chasseur meilleur chasseur hmm. meilleur coiffeur bi muy joxe prix ba ñëw ci meilleur conteur man avant mu ñëw ci meilleur conteur sax dama anéer dem ba ci mur bi sam benn copain ma taxawaloon foofu li ma booy hmm. kaay ma ne ko bàyyi man ins bi mënu ma taxaw bàyyi ma reculer na léegi ndax man dama doon xaar prix bi bi ma reculer ba ci mur bi toog di xaar meilleur conteur pour ma daaw dem jëli ko dama jékki-jékki ñu ni prix meilleur conteur ma jóg taxaw ñu ni bàyyi jibi ñaay le treize boobu. Mm-hmm. ñu ni Baye Jibi Ndiaye. Mm-hmm. ma ni waaw Baye Jibi Ndiaye non non. ñu ni waat Baye Jibi Ndiaye woo nañ ko trois fois ñëwul. Mm-hmm. yéegul sur scène. man ci laa avancé ñëw ci euh, foule bi. gis gars yi man leen waa Baye man maa gagné Fallou Fallou Olof Ndiaye bi nga xam ne maa ko gagné. mu ngi fa woon taw. ma ne ko Olof lii mooy lan mu ne ma ah man de damaa jaaxle. Baye Jibi Ndiaye compétir na wala compétir. compétirul man compétiruma ak moom. waaye compétir compétir ma ak moom man Olof Njaay laa compétir muy dëkk Fatick ñuy bàyyi Jibi Njaay ma taxaw ci foule bi gisuma dara gisuma réaction kenn ma def tout droit def tout droit bëtt foule bi avancé romb ministre bi romb lignement gouverneur ñëw bi ma ñëwee am na ku taxawoon ci kaw côté podium bi am naa sécurité yi hmm. ma ñëw ma ne ko copain man maa gagné compte mu ne ma yow la ma yow noo tudd man ko man Abdoulaye Ndiaye laa tudd man maa gañ compte mu ne ma non non Baye Djibi Ndiaye moo gañ man man aussi bi may wax ak moom directrice bi dafa ñëw jóg ñëw jàpp sama loxo yéeg ak man ci bi bi ñu ci kaw podium bi Baye Djibi Ndiaye moom yéeg na. Mhm, Baye Djibi Ndiaye gel bi gañe woon musique. ñu ne Baye entre parenthèse ñu ne Baye Djibi Ndiaye combattir na mais par texte la envoyé. ah loolu la loolu loolu la ñu wax nee nañ Baye Jibi Ndiaye. compétir na compétir na. mais texte mais présent wut mais texte la envoyé. texte contre texte. waaaa ah, contre texte la envoyé. jury bi contre texte amul waaw yooyu am na rumeur boobu dégg nañ mhm. mais kenn du compétir ay compte par texte. Mhm. ndax compte dañuy noté voix déplacement décor euh, euh, waaw yooyu la ñuy mhm. kon kon ku ne toog sa kër bind compte. c'est vrai da ngay joué jury bi toog notel la bi ñu defee loolu ma yéeg directrice bi ànd ak man ci kaw gel bi gagné woon musique yéeg Zeyna il est elle est de Diofior ñu yéegee ci kaw ñu taxaw man maa ngi taxaw ci wetu directrice bi li ma lay wax le treize janvier la mhm. maa ngi taxaw ci wetu directrice bi ñu def ligne ministre bi yéeg ci scène ñuy joxe prix di joxe prix ba ni compte biñ ne compte paa bi Baye Jibi Ndiaye moom avancé ci kanam ministre bi taxaw ministre bi nuyu ko jox ko. chèque symbolique bi. chèque euh, chèque symbolique bi. j'étais présent. waaw mm-hmm. jox ko ko. directrice mu mu ngi woon sama droite ma ne ko directrice waaw lii ma waaw waaw waaw mu ne ko directrice man maa gagné lan mooy lii man maa ko wax lii sur scène en direct 2S TFM. Mm-hmm. ma ko lii lan mooy lii man maa gagné ba déggoo ne sur scène. mu ne ma Ablaye Ndiaye xaaral ma ne lu may xaar man maa gañ directrice mu ne ma Ablaye Ndiaye eh léegi ministre bi jox paa bi euh, bi ci la mu jeexee mu ñu wàcc ma ne ko directrice man du ma wàcc man maa gañ mu ne ma kaay ci suuf ma ne ko du ma wàcc ci suuf mu wax wax ma ne ko du ma wàcc ci suuf ku ne ñëw ku ne fekk na ma fa paa bu ne fekk na ma si kaw bi. fekk ministre bi wàcc na moom moom dafa joxe rek wàcc. problème yi commencé nañ depuis cérémonie de. collective collective le 13 janvier. Eh, kon suite logique la ñu continuer. Mm-hmm. ñu jàppante foofu pas bu ne façon ku ne ñëw na fa ku ne ñëw na fa bi coow loolu amee bi coow loolu amee Babou Thioune dama ko woo jotuma ko dama ko woo trois fois pour mu ñëw décanté ko mu ngi woon foofu yaa moom. booba entre parenthèse maag Baba ñu ngi toog. Mm-hmm. ñu xoolee ñu commencé joxe prix yi. Mm-hmm. tudd ñu ci Gossas. Mm-hmm. baaba toog naa ak moom mu jël benn bloc note xoot ci benn feuille bind benn texte. waaw ñëw ba ci ministre bi toog ci wetam. garde du mm-hmm. corps municipal ñu toog mu ko. loolu waaw moo nekkoon prix coiffure beeg togg bi. loolu moom sama kanam la. waaw loolu am na man bi ma ko doon woo dama ko doon expliqué li xew ci kaw. ndax pour man gisuma sax. ci la ci la ci la femme bi ñëwee. paa bi ñëw photographe ministre bi ñëw na ci man ni ma waajal ma ne ko wàccu ma mu ne ma booy kaay ma ne ko sëñ bi defal li la war man cadreur laa tey compte moomu fi indi man li ngay liggéey dama liggéey demal ma photo ma taxaw ci kaw ku ne ñëw na fa ba suñ metteur en scène fekk na ma fa ni ma Ablaye wu kaay wàccal ma ñëw mu ni ma lan la ma expliqué ko dafa tourné dem dama ne ko damaa gaañ sa kanam ñu jël prix bi jox keneen du ma wàcc paa yi mujj gi kaay fii ñu jox la sec ma ni leen man maa gaañ da ngeen di woowaat ministre bi mu yëg ci kaw tudd sama tur Abdoulaye Ndiaye maire prix régionale régional mu jox ma sama yëf parce que sama naw la ñu ngi si suuf di ma seetaan wax mm-hmm. saa si mm-hmm. lii laa leen wax mm-hmm. ma kaay ñu signé la man leen du ma def loolu foofu xaw naa faa yëngal le treize boobu le treize boobu ñu def noonu def noonu directrice ñëwaat ci man ni ma Ablaye Ndiaye man ngay def nii man ne ko directrice yow man ngay def nii nii la demee ñu toog paa bi jekki-jekki beneen paa bi am na paa bu soloon belte ñëw ni ma waa ok ñu ngi lay defaral ministre bi wax dem naa waxoo dina ñëw yéegaat ministre bi dafa ñëw yéegaat ci kaw hmm. ñu tuddaat sama tur Abdoulaye Ndiaye ma yéeg ñu jox ma bi nga to toofe lañ jox ak lan papier bi la jox lan moo si nekk. attestation attestation chèque deux millions. attestation bokkut ak chèque symbolique yu ngand yi ñu joxe. non non. attestation chèque moo ci nekkoon. en avance. sama tur nekk ci deux millions. plancaaru plancaaru chèque envoyé. waaw mooy chèque mooy chèque symbolique. waaw chèque envoi. yooyu aw ma ko. baobab bi laa argent waaw baobab bi la ministre bu jee jox ak attestation bi loolu la ma jox ma wàcc. ñëw jël ay photo ñëw ci yow waaw jël ay waaw am na ay presse la fa dalal. Mhm. en plus. Mhm. donc entreprise presse boobu ma fa dalal kooku sama professeur photo euh, infographie audiovisuelle la. Mhm. kooku mooy Laka. kooku euh, Dakar la dëkk. kooku moom noonu ñooñu euh, day topp day topp événement. kooku moo ma jàngal cadré maa ngi ko defee Pikine lép ci aar bi ba tey. léegi. Mhm. Eh, li nga développé ci jour collectif ba lépp am na solo. Mhm. léegi nag dañuy ñëw ci eh, bi ngay dem Fatick. Mhm. ñu ne dañ leen a war a jox nag seen xaalis. tax bi ngay dem danga ngaa jot notification pour ñëw jël sa xaalis. wala ak lan moo xew ca jour. bureau gouverneur parce que d'ailleurs, néwoon bon d'après après sama information centiculteur la ñoxoon la ñuy defee remise bi. Mhm. ñu mujj délocaliser ko n' est ce pas pour gouvernance. yëpp gouvernance oui. léegi nag ma bëggoon a xam nan la histoire boobu demee ak lan moo xew ci biir salle ba. Mhm. ba mën jàpp la yóbbu la police centrale Fatick. Euh, boo xoolee fin on fees nag bi le 13 janvier le 13 janvier Fatick bi fait fay delluwaat pour jël xaalis le 1er février la le 13 janvier le premier en hmm. le 31 janvier euh, nous groupe parce que chaque jour nous avons suñu xaalis bi kañ ñëw banque Nous war le 31 janvier avons ñu un message ni ministre bi day pour donner euh, l'oréal yi joxe meilleurs prix ay élèves Mm-hmm. léegi ñun ñi nga xam ne ñii ñoo dëkk Fatick te gagné nañ ko fi xaar bi ma gisee message boobu tax ma woo kan. Euh, kon bi ngay dem envoyé wuñ la notification pour nga ñëw jël sa xaalis. message. Ah. nañ ma ko damay maa ngi ñëw. Fall kan moo la ko envoyé. Cheikhou. ok kan mooy Cheikhou. Cheikhou ci centre culturel bi bureau directrice. Mm-hmm. moo bureau directrice ak bureau am ñoo jàkkaarloo moo ci centre culturel bi la nekk. moo ma message. ci le 31 euh, janvier boobu. ni ma ministre bi day ñëw le premier day ñëw Fatick pour jox ñu suñu euh, euh, kii nii suñ pour jox ñu suñu lauréat ci centre culturel bi hmm. ñu koy le premier ci la xëyee man le premier yeewu bi ma yeewoo dem suñu kër préparé man waaw man bi ma préparé ba pare Baba Thioune ci la ma oowee ni ma femme bi dëkk Mbar moom moo gagné coiffure femme bi dëkk Mbar day dem Fatick mu ngeeg oto dese na benn place nañ demaale hmm. man ko waa xaar ma foofu laa dugg man Baba Thioune femme bi euh, dëkk Colobane ak beneen beneen beneen tonton man ci otoom yooyu boobu laa dugg ñu dem ba centre culturel dugg ci biir biñ duggee ci biir fekk naa fa ay nit fekk naa fa ay nit ay gagnant ñoom Zeyna dem dëkk Diofior biñ fekkantee foofu tooñante fekk ñu ngi doon waaj Toubacouta hmm. carnaval demoon Toubacouta bi ñu dajee foofu ci buvette bi man ak Zeyna ñu waxtaan ba ma jënd fa ndékki ndékki euh, mu may laaj kañ ngay dem Toubacouta ma ne ko man damay delluwaat Gosaas doog a dem Toubacouta moom mu ni ma man fii laa jugee. Hmm. dem Toubacouta ci noonu Baba Thioune ci la ci centre culturel bi Baba Thioune. Hmm. ñëw ni ma laaj kaay bàyyi li ngay def kaay ma ñëw mu ni ma sa privé gouverneur da koy jox keneen prix bi gouverneur da koy jox keneen loolu laa dégg. Mm-hmm. ma ne ko gouverneur ah maa ne ko gouverneur bu fekkee euh, mooy tëjee dina ma tëj su defee loolu li laa ko wax ma ko bu jëlee sama prix joxe ko keneen dana ma tëj da ngeen di ñibbi Gossas bàyyi ma Fatick ñu def noonu ci la gars yi génnee ñu ni réunion bi gouvernance la ñun ñëpp ñu génnaat jóge centre culturel génn dem gouvernance seexu bi ma envoyé woon message dama ko dab ci yoon bi ni ko seexu gouverneur li mu bëgg a def loolu dëgg la mu ni ma ah man de gaañ laay man xaw ma ci dara ma ne ko ah affaire bu defee loolu fii dina yëngu de mu ne ma fii dina yëngu moom moo ma wax loolu moom seexu mm, mm. ci lañ génnee centre culturel dugg gouvernance bi ma duggee gouvernance tak damaa dajeeg préfet Dramé sama gaañ la sama tonton la sama papa la daf ma xam ci aar damaa dugg tak mu ne ma eh boy ana bus bi parce que dama ko mus a léebal bus bi. Mhm. ma ne ko bus baa ngi Gosaas. man musuma koo gis Fatick xaw ma ni woon sax Fatick la ne préfet Dramé bo ma ne i fii de bu yëngoo dina bett préfet Dramé te dina ko jaaxal ci man ci laa jëlee sama trophée bi dem ba ci préfet Dramé ni ko man euh, monsieur le man maa gagné prix contre régional wan koko ko mu félicité ma foofu waxtaan nekk tuuti gouverneur génn ak otoom pour jëli ministre bi bi génnee ak otoom ministre bi jëli ministre bi ñun ñu ngi ci salle bi di xaar ñun ñëpp waaw mm-hmm. ah, gars yu nag yëgoon nañu ni gouverneur day jox keneen prix bi ci mm-hmm. saal bi ndax salle bi man rek la gars yi doon xaar kat euh, avertir naa leen ñoom ñëpp ba ci waa Gosaas mm-hmm. nee naa leen bu ma kenn téye waaw ah, bu ma kenn téye parce que li gars yi bëgg a def ni man du ma ko bàyyi nekk tuuti ministre bi dugg si bi ministre bi dugg see ñu jóg taxaw mu toog waxtaan ñu jox maire madame le maire mu ngi fa woon euh, préfet Dramé mu ngi fa woon gouverneur mu ngi fa woon commissaire mu ngi fa woon ak ak ñeneen ak ñeneen ñu toog biñ toogee ministre bi jóg euh, def euh, discours waxtaan ak ñun xamal ñu li ko fi indi léegi nag ñu tàmbalee joxe lauréat yi bi ñuy joxe lauréat di joxe lauréat yi di ko joxe ba ñëw ci compte man damaa yóbboo yóbbaale woon sama euh, trophée bi ak sama station chèque bi. Mhm. bi ñëwee ba ci compte ni compte paa bi paa bi paa bi ma dajaloon la dafa ñëwaat bi ñu dajee gouverneur am na sax ñu ni ma laay paa bi da ñëw que du moom la ñu war a jox xaalis bi biñ ne prix compte régional ni Baye Jibi Ndiaye paa bi jóg bi mu jógee dem. ginnaaw gouverne euh, ci ginnaaw ak ministre euh, ministre bi jox ko sec bi sec bu deux millions mhm. man ma jóg téye sama trophée ak sama arrestation wiiri man tamit ñëw ci gaan bi ni ko euh, sëñ bi man maa gañ compte mu ni ma noonoo kii moo gañ yow nan nga tudd man ko Abdoulaye man maa gañ compte régional mu ni ma noonoo gañu woo ma ne ko si man maa gañ ministre bi mu ngi toog gouverneur mu ngi toog ma ne ko monsieur le ministre yow yaa ma jox trophée bi man maa gañ bi may wax ak ministre bi commissaire bi gis moo may wax ak ministre bi mu ñëw ni ma eh jugee fii ma ne ko monsieur le commissaire man maa gagné compte régional mu ne ma eh jugee fii ma ne ko pas bi compétirul mu ne ma jugee fii bala ma tëj la. Mm-hmm. waaw commissaire. mu ne ma mm-hmm. jugee fii baa ma tëj la. man ma ne ko am manote ma man ma ko wax loolu. ñu ne commissaire daal jot ay instruction ci gouverneur mu ne mu génne la. Sadio mu génne waaw bi ma waxee loolu la ko euh, lan bi ma nee bi mu nee dañu ma jugeel fii baa ma génne la jugeel fii baa ma tëj la la ma wax ma manote ma mu jël téléphone am oote oote oote euh, garde ministre bi ñoom ñaar jàppoo ma yóbbu ma génne ma bi ñu may génne fuul bi sax tàmbale woon nañ génn ba préfet Dramé dafa ci biti. ñu téye ma préfet Dramé ci boppam nee commissaire bi bàyyi ma bàyyi ko mu dem toog commissaire bi ne ko dama koy yóbbu ci noonu am paa bu génn ni ma Abdoulaye Ndiaye kaay wuyu monsieur le ministre ma duggaat ci biir toog bi ma duggaatee ci biir toog gouverneur ñëw ba si man ni ma gis nga boo noppuwul dama la yóbbu ma ni ko madame le gouverneur yow yaa xam ni man maa gañ compte mu ni commissaire bi yóbbu ko commissaire bi jàpp ma yóbbu ma Hmm. nii léegi bi ñu demee bi nga demee commissariat ñoom lan lañ la accusé na yow lan nga def bañ arrêté la. bi ma demee commissariat bi ma demee commissariat dañ ma ñëw oto bi dafa ñëw ñoom bi ñuy ñëw sax pour ñoom moo fa ne. Hmm. gang lañ def ñëw. leen la yéeg. léegi léegi looy wax ñu ne da nga da nga menacé. Mm-hmm. homme de loi. Mm-hmm. menacé gouverneur. Mm-hmm. menacé waaye le ministre de la culture Alioune Sow. Mhm. waaw loolu la wax. biñ ma yóbboo biñ ma yóbboo commissariat bi ma eggee gars yi jël trophée bi tag teg jël bagage yi ma toog ci siège bi noonu gars di ma laaj ma leen di expliquer ñu ma loolu kese man leen loolu kese da laa def damaa gagné ñëw di jël ñu ne keneen ma jug di wax ñu indi ma fii ñu ne ma non booy defoo loolu da nga perturbé euh, réunion bi ah da nga def. Euh, kii rébellion man leen non non man def ma rébellion am na sax ñu ne dañ ma bëma gouverneur. waaw waaw damaa bëma gouverneur loolu dafa egg si Gossas. laaj dafa bëma gouverneur. man leen gouverneur su ma ko maa ngi rëbës. outrage à un officier en service. laay man dofuma bay bëma gouverneur wax nañ ko fii laaj dafa bëmee commissaire man leen na bu bala ngeen a gëm laaj ni daa ma da ngeen xool ndax laaj day ma xaate man nitu ordinaire sax duma ko ma wax mais dañuy wax. biñ toogee euh, onze heures onze heures quarante cinq falaa toog ba dix neuf heures vingt heures moins ci sees bi ci biti noonu ci couloir enquête wuñ la defuñu ma dara laajuñu la dara dañ laa ñëw rek jël la teg la teg ma noonu foofu laa toog di naan sama café Touba ba dix neuf heures ci la commissaire bi ñëw bi mu ñëwee tak dugg si gars yi jóg man sax bi gars yi jógee laa xam ne commissaire bi ñëw la bi mu ñëwee tak dugg si xool ma ni eh kii la moo tax dugaloo leen ko dama la xoon nga dugal ko ci biir dugal ma ci biir noonu noonu gars yi fuyatu ma jël samay bagage xam nga dugal ci biir dugal ma ci biir bari euh, gris hmm. noonu ci jeudi bi ay dix neuf heures falaa fanaan falaa reeree ci biir gris laa reeree waaw xëy ndékkee fa añee fa noonu waxuñu la dara ne la lii nga def waxuñu ma dara lu dul di euh, enquête ma ma wax leen li ma def ñu ni ma non da def rébellion man leen non su ma defoon rébellion du ma egsi fi maa ngi rëbës wala cent su ma dóoroon gouverneur maa ngi cent mètres wala rëbës du ma egsi Fatick maa ngi Dakar. léegi bi nga xëyee ca ngoon nga. Eh, ni ñuy dem di def ay médiation di def ay médiation maire di woote ñëpp di woote mm-hmm. waaw adduna bi yëpp ku ne di woote kenn amul jàmm ñii di def vidéo mm-hmm. eh, ñii di def ay photo presse bi tàkk ñëpp ñëpp di def ay vidéo ay publication bàyyi leen laay waaw muy daw. léegi loolu moo tax ñu bàyyi laay. Mhm. wala dañoo xam ne ñoom dañ laa tooñ. Mhm. bàyyi la biñ la bàyyi lan lañ la wax ndax laay mi dañ koo tooñ. Mhm. bàyyi ko wala comprendre nu mu ko expliquer lan lan biñ la bàyyi lan lañ la wax. avant ñu may bàyyi sax avant ñu may bàyyi ci ngir yi ay vendredi bi biñ ma fanaanalee euh, police Fatick vendredi bi ci ay midi. dem naa ba woo commissaire bi ni ko tey ngaa jël ko trophée bi te ba ma ngir yàlla ndax man mënu maa gagné deux millions ngeen jël ko xaj ma sama jàmm jëlal trophée bi bàyyi ma ñibbi foofu lañ ma téye di ma enquête enquête nañ ma quatre fois ma ne leen sëñ bi man de Ablaye mënu maa wax lu ma deful lii laa def lii laa mën a wax mënu ma cee dool leneen ndax lii laa def enquête nañ ma quatre fois laaj ma façon da nga dóor kii man leen non su ma dóoroon man leen su ma dóoroon gouverneur commissaire bi daf may sifaay daf may dóor hmm. man leen su ma waxoon gouverneur bu may ñëw deret laay tax waaw nii la demee fa euh, man ne fa ay dix neuf heures commissaire bi génn bi mu ma ñaan ko man ko monsieur le commissaire te nga ma dimbali ma bàyyi ma ñibbi man mu ne ma non yow booy yow booy euh, danga nga doon def rébellion ma ne ko man dama doon expliqué ndax damay expliqué faaw ma expliqué waaw ndax mënumaa gagné nag ngay jël ko di ko jox keneen may gëm waaw wala may bañ a wax du ma def loolu. léegi foofu fan ngeen mu jël après biñ la bàyyee lan lañ la wax man. moom laa biñ ma bàyyee biñ ma bàyyee wax ñu ma dara. dañ laa bàyyi rek nga ñëw dañ maa bàyyi ma ni commandant bi. commandant bi nan laaj def man nii bu ma ko doon jot bu ma ko doon topp may def ndax gouverneur fekkee na ministre fekkee na préfet fekkee na madame le maire fekkee kon fan laay jooytoo moom mu ni ma demal tribunal mhm. nii. ma génn ñu jox ma samay bagage sama trophée ma ñibbi ma ñibbi si Gosaas. d'accord jóge nag Fatick. Mhm. ñëw bi loolu lépp amee Fatick. Mhm. ñu ñëwaat Gosaas parce que Gosaas. créé woon nañu fi benn collectif tuddee ko non à l'injustice mhm. ba gars woon fi presse bi RTS TFM no safala TFM Walf ak site yi nekk Gossas yëpp Gossas Buzz waa TV esprit Gossas TV ñu taxaw ci taxawaay bu am solo mais dañoo gis ne nag démb euh, dañoo jékki-jékki démb ñu woote ne Laye Poobar euh, woo nañ ko mairie dañ koy jox. Mhm. un million. ñu bëggoon a xam nag processus boobu nan la demee ak un million yooyu indemnité la wala li nga gañe la question boobu daal waa Gossas ñu koy posé. ñu ngi koy posé ñu leeral dina baax waaw. noonu la demee yow euh, tonton xoolee sax yow. jour bi ñu may jox ma koy jëli. Mhm, dëgg ma di ma laaj man la ah man de la man de yëgaguma dégg naa nag avant ay deux jours avant ñu ni euh, ministre bi jox na le maire un million pour mu jox ko mais boobu information bi egseegul woon ci man jour bi ñu lay o jour bi la Bob di woo pour mu ñëw pour euh, couvrir ko man tamit jour boobu Baba Thioune woo avant jour boobu wax ma ko euh, sëñ bi tamit woo na wax ma avant mais Ibou Bob moom woowu man bi ma woowee ci jour bi ba wax ma ko man la ah tonton man de yëgu ma ko nga ne ma ah man de dañ ma koo wax léegi man la ah man de noonu laa ko yëgee ci jour boobu ci la ma Ibou Bopp woowee ci numéro sëñ Mame Mbaye Ndoo xaw ma ni ma Ablaye man maa ngi suñu kër mu ne ma maa ngi bureau ñëw ko bi ma ñëwee fa laa hmm. ak euh, beneen site Gossas Buzz. Gossas Buzz. foofu laa leen ak euh, Ibou Bopp ak. Euh, boobu moom mooy directeur cabinet maire. waaw di Gossas waay ak. Hmm, tonton Aziz sëñ Mame Mbaye Lo. sëñ Mame Mbaye Lo tonton Aziz secrétaire administratif. waay. Hmm. ak euh, Meng. ak Meng. Euh, moom Meng moom moo nekk euh, secrétaire général comité comité exécutif bu bu ginnaaw laay. Hmm, waaw ñooñu laa fekk. bi ñu ñu egsee ñu toog avant ñuy démarrer direct bi Ibou boobu ci boppam. moo ni ma laay euh, monsieur le maire moo ma jox lii nii un million bi pour ma jox la ko avant ñuy démarrer euh, je pense avant ñuy démarrer direct bi. Mhm. ci la euh, Aziz Mar. Mhm. poser question Ibou Bob ni ko un million bi kan moo ko jox laay maire wala ministre bi. Mhm. Ibou Bob waaw Ibou Bob ni ko maire daa maire moo ma jox un million bi ni ma pour ma jox ko laay. Azimane yi est-ce que du ñu wootee laaje ci la ñu wootee euh, jot Ali Diallo tonton Ali hmm. mu wax ñu ni ñu ministre bi moo jox monsieur million pour mu jox ma ko hmm. waaw ci noonu lañ toog euh, Ibou Bob jël parole bi mu jëlee parole xamal ma ni euh, ministre bi moo jël un million jox ko monsieur le maire monsieur le maire jox ma ko ci poosam du du sama prix moom sama prix man deux millions la waaw ah. sama prix millions la te jour biñ ma koy jox jour boobu ma koy jox jour la ma woo parce que avant un million yooyu di ñëw. Mm-hmm. dañoo dégg ci ay nit. ne mm-hmm. monsieur le maire nee na laay poobal bu ko buñ toofeem moom dina engagé woo moom jël jox ko xaalis moom fay ko ko. Mm-hmm. donc bu un million yi ñëwee dañoo foogoo un million yooyu maire moo ko jël jox la ko. Mhm. loolu lañ foogoon loolu lañ foogoon. kon un million yi comme que ñoom leeral nañ ne un million ci ministre bi la jógee jaar ci loxo aadama ñëw ci yow. Mhm. indemnité la wala. indemnité non man mënuma ni euh, trophée bi la. Euh, le maire Adama Diallo depuis bi problème bi amee depuis police. teggiwu ci tànkam moom mu ngi dox di waxtaan ak ministre bi mu ngi dégganteeg ministre bi pour lii ñu jël ci man ñu delloowaat ko ci man même moom bu ko yëgatiwul xaalisam jox ma ko moom moo dox li tax million bi ñëw. Hmm. Hmm. waaw moom moo ko dox. moom moo ko wax même bu ko joxewul moom moom moo ko dox waaw bi bi ñu ibu boobu tamit naan ni ministre bi moo ko joxee maa ngi fa woon yow yaa ak ñeneen ak ñeneen. Euh, léegi. waay euh, jërëjëf laay kontaan naa bi gudd na. parce que dafa neex quoi. question yu bari aussi ma lay ndax yow. Mm-hmm. actuellement nii somme boobu da nga leen koo bàyyee. voilà. somme ban li nga gagné. li yi nga gagné. Euh, man bi ma amee problème Fatick ba ñibbisi man dama am kilifa dama am kilifa dama am sëriñ bu ma kilifa nag am naa ndey ak baay ñoom samay kilifa lañu waaye am naa kilifa maanaam wéeruwaay biñ ma bi loola xewee sam biñ ko ko waxee li moo bi mu wax mooy ah, na leen ko maye parce que moom avant may dem Fatick daf ay wax ci kër gi bi ko daf ma junj biñ ko ko waxee dañ nan leen ko maye bi ma demee ci sama wasila sama sëriñ sëñ Moussa Lo ko ñaanal yàlla loo yaaram bi ma demee li wax mooy Ablaye bu ci waxati demal nga liggéey lii la ma sëñ bi wax te man ndokk bi may man ab ndongo kese laa man Abdoulaye Ndiaye mii taalibe laa man moom laa bëgg a doon sax laa wax ñun du ñu ay taalibe ndax waaw moom laa bëgg a doon ndonga man bi ma sëñ ne bu ci waxati mm-hmm. demal nga liggéey mm-hmm. am na sax ñoo xam ne nii jot nañ ci waxante ay waxante metti mm-hmm. ndax damay dajeeg nit mu di ma laaj sa deux millions waa nii ñu demee man la sëñ na bu ma nga di ma ah waaw man sëñ bi laay topp te mooy sama kilifa sëñ bi du ni ma bu ci waxatee demal nga liggéey may wër di yuuxoo di taal ay. waaw waaw la noonu la. noonu la noonu comme que comme que sëñ bi wax na bu ci waxati. Mhm. kon man jàpp naa ne dootoo ci waxati. waaw kon nag dañuy nekk ci fin wu émission bi. Mhm. donc fin émission bi. Mhm. dañ lay laaj yow say projet. waaw lan nga bëgg a def. ci sa carrière bi nga ne nii. sama carrière bi waaw samay projet mooy. ñaan yàlla projet yi ma ne mu gën a yokku gën a dox ñun aar la ñuy dund aar nag dafa yaatu aar dafa yaatu sànq wax naa la bu ngeen gisee laay mi boobar mi muy way day way dama ko jàng dama ko tarbiyu su ngeen ma gisee may fecc dama damaa mën a fecc damay bañ ngeen gis ma may fecc ngeen naan mu defee damaa mën parce que ci aar la bokk théâtre dangay ngay théâtre ba mu neex la ngay fecc fecc ba mu neex la ngay way ci aar bi laa ne hmm. aar bi dafa yaatu am na dessin mën nga ma suba mën nga ma fekk may defal tableau daa mm-hmm. dama koy def. Mm-hmm. waaw ndax euh, peintre dama euh, li may ñaan daal mooy aar bi ma nekk suñu boroom defal ma ci gudd fan ak wér gu yaram bu ma defalee gudd fan ak wér gu damay am liggéey mooy maye bu fekkee liggéey mooy maye amul naxee amul baabu bu dee liggéey mooy maye li may ñaan yàlla ci li ma ne suñu boroom may ma gudd fan ak wér gu boo amee fan bu gudd ak wér moom ci li nga ne muy jàmm danga ci am xewal <laughs> waaw loolu mooy projet yi mm-hmm. loolu mooy projet waaye donc beneen bi mooy sant sant ñan nga wa ñan ngay sant waaw sant di la sant yow di sant suma papa problème bi di sant suma famille suma limee damay jiw Sénégal bëgguma di lim ñëpp problème bi ma amoon dem na fépp bitim réew fépp la dem gaa yëpp ci waaw gaa yëpp ci wax mu metti ñëpp damay sante ñëpp di sante suma sëriñ Mamour musaba di ko sant bu baax di ko ñaanal yàgg fi te wér di sante suma papa suma yaay yow tamit ma lay bëggee ñoo ko bokk tonton Touba esprit Kosa TV esprit Kosa TV bi nga di la bëggee bu baax ah di bëggee artistes yi di leen wax du yomb de gars Arbi. du yomb mënul yomb tonton waaw yow da nga ñu koy wax yow doo ñu question fin. Question ah, question fin sant n'a ñëpp tolo question fin bi damay bañ lim di joom quoi boobu cant gi la cant nga ba pare. mais mhm. bi moy question de la fin. Mhm. bo amone loy wax autorité locale yi. Mhm. lan nga leen di wax. lan la leen di wax waaw. Euh, ci ci ñan. autorité locale yi le maire le président du conseil départemental lañ lañ wala a yokku. ci ci fan. ci Gossas gii. Gossas luñ fi wala a yokku. ci ci global ah. waaw global te. loo leen loolu ban message nga leen ah. boo xamante ni Gossas gépp nañ ci jëriñ. loo xamante ni tey euh, ñoom war nañ cee def seen kéemtalaay kattan. Mhm. li may yokk li may wax pour def ko Gossas. ci côté culture ñun amul fu ñu jëm waykat bi amul amuñu fu ñu yëf quoi fu ñu daw jëm pour pour defar liñ bëgg defar. loolu buñ ko amee loolu buñ ko amee ah, dinañu gënal lool mooy espace pour culture du ma wax théâtre kat bi nag du ma wax ndax culture ba euh, euh, lawbe bi sax day def euh, culture day def day def art espace boo xam ne daal pour culture yi la ñuy def culture suñ ko amoon mm-hmm. waaw dinañ sant bu baax maison de culture maison de culture mm-hmm. ndax loolu bokk na ci li gën a sooxe sport bi tonton mus mm-hmm. naa ko wax sama émission rajo ni leen ASC C bi moom lañ gome moo tax association sportive et culturelle. waaw C bi lañu lekk moo waral coow li moo waral stade bi am coow tout le temps dañoo lekk C bi culture moo amoon. Hmm. xam culture fu mu am mbégte day am. dëgg la fecc ree kaf théâtre waaye foofu xeex mun fa buñ ko ci doolee rek mooy espace culture bi ma lay wax nii. dëgg la yi faju hmm. Hmm. am na solo. waaw foofu la ñuy teg suñu baaraam. Uh-huh. may nuyu laay poobar. Uh-huh. di la wax ne li sa kanam. di la bu baax. nga bëgg ko yàlla na ko yàlla defal. amiin xol bu baax nga yor xol bu oyof bu baax nga. kenn du incha allah waa Gossas. waa Sénégal ñëpp ñu doon suivre Esprit Gossas TV bi kontaan naa ci yéen. Mm-hmm. émission baa ngi noonu émission mm-hmm. improvisée la nag. waaw donc lépp lu ci dëng rek. xamal ne dañuy jéem mënuñu. waaw dañ ko kii Esprit Gossas TV chaîne bu ndaw a ndaw moo gën a tuuti chaîne yi nekk biir Gossas. am na Facebook. Facebook bi tubalu lu mu si bi amaana Esprit Gossas TV am na YouTube. Mm-hmm. am na Instagram ku bëgg rek mën ngaa dem abonné ngeen dooleel seen doom. Mm-hmm. dooleel eh, képp kuy acteur culturel wala ku nekk Gossas sport diine jéeg fépp. explication ci bayiwul kenn jërë ngeen jëf ba beneen yoon laay kontaan nañ macha allah. ok bégee jaajëf am na rek. Yeah, I think that's not a problem. But that's it. That's it.